fen yee moom rek la mën a wax di dul dee dama jaay te ba agsi fii mel ni mii contre ay jul MC boy matuma shit ñu ñëpp la it duma ragal te duma tiit léeg-léeg ma dégg ñu mii te bàyyi mbit dama ne gën a sadik ñoom moo pour indi biif rab bu saté bu laa ñëw turi ma lii fi ma jaar ku fa jaar walaay tàkk baan eh amu fi mas doo ko gis abadan Maxis Black aka jigéen ju mën góor woot xaat defu doom mooy sama point fort may dugg marché muy neex di dugg muy neex teg fur na muy neex muy neex sotti diw muy neex rosi muy neex dal ko ci MC suul yàq muy neex may dugg marché muy neex di dugg muy neex teg fun muy neex marine bi muy neex sotti diw muy neex di rosi muy neex dal ko ci MC suul yàq muy neex pare naa démb tey soogu ñëw waaw Mame Samba musuma laa ñaan lu mel nii ay nit bu ñu nekkee ci li ñuy liggéey ci la jaamoo yàlla ci la ñuy teranga waatal ma son bi ma xoolaat ko parce que le temps muy ñëw maa ngi doon maa ngi maa ngi woon ñëwaat ma xoolaat ko di yàq muy neex di togg muy neex di la ko jox muy neex ngay ñam muy neex ok ñu xaar clip bi Pape Samba Maxis Black ñu xool clip bi ñëwaat ayca ayca ayca. léegi damay afro dëti saw damay green rap man li may ñaan god wala du nekk star mais rab ba rab ba xëy bis ma ay all day all night maa ngi si temps bi di waar xaaruma ci di dugg muy neex teg fur na muy neex mën ne bi bi muy neex sotti diw bi muy neex rosi muy neex dàpp ci am si suul yàq muy neex may dugg marché muy neex di dugg muy neex teg fur na muy neex mën ne bi bi muy neex sotti diw bi muy neex di rosi muy neex dàpp ci am si suul yàq muy neex ay Maxis Black Diaw yaakaar naa ni eh, li mu woy am na solo te ñëpp dégg nañ ko. en tout cas li mu yàq neex na macha allah ci jigéen en tout cas big up toi parce que vraiment très rare bàyyi ñu góor s'il vous plaît ñu apprécier dama koy féliciter ah, parce que vraiment bi ñu naan Maxis xalaatu moon déjà jigéen la. mu ñëw indi rab boo xamante ne macha allah tu sens voix bi puissance waaye nga wax ci lu neex loo xamante ne yëfi jigéen la togg muy neex yàq muy neex. léegi nag lépp dem marché la ko <laughs> am na solo am na c'est important. c'est important c'est important c'est lii mooy teranga li euh, di toog bu muy nee euh, <laughs> Maxime ayca ayca merci beaucoup. heureusement que caméraman nu xale la da ko dagg ca kaw kontaan naa ci yow bébé. merci beaucoup en tout cas sant nañ la gërëm nañ la ñuy contact yow baax ñu jël beneen invité bi nga xam ne moo ci topp Diaw euh, di <laughs> ko may wax de ah di ko may wax de ah léegi <laughs> la Maxime. bu wax xale yi ñoo koy gérer. dem marché muy neex. di ndugg muy neex. di togg muy neex di togg muy neex. waaw ngay yàq muy neex. nañ puus ne ñun faale wuñ OMG des fois faale wuñ la Mamy Victory faale wuñ la affaire bi Maxime la. parce que mooy def muy neex. ñu bàyyi la ñu bàyyi la ñu ñu ñu. baax na xam nga kii day maam ñu bàyyi la ñu bàyyi la nga nuyonteeg téléspectateurs yi ñun nag du ma wax sax ñun man parce ki kii moom a yóbbaale. Euh, bul topp kii euh, nuyonteel ak téléspectateurs <laughs> yi. bu ko defee ñu waxtaan ci clip bi nga xam moom nga asalaamaaleykum euh, ak ñëpp ñi ñuy seetaan donc maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant. Mhm. voilà di wax si Maxis Black si invitation bi vraiment. Euh, Guédiawaye. waaw que ñoom si yu yi. waaw ah. ok ok euh, lu waral way dem marche muy neex di dugg muy neex lay kolot muy neex. laa concombre muy neex laal ñam bi muy neex ma togg muy neex ma ñulug muy neex ma pare yàq muy neex ngay lekk muy neex nga ñam muy neex nga ñam ñamaat muy neex donc muy neex yi. Eh, euh, euh, eh, eh, yow booy defaat sama la bag. yow la saaw. kay nga indi ma que waaw waaw dama indi ma loxo indi ah, euh, lan moo waral ñu dàq. ñaaw waxtaan ci jàmm waaw déjà aspect féminin bi féminisme bi parce que xam nga góor du dem marché. dëgg la góor du dem marché du dem dugg du dem toog donc jigéen mooy def loolu. Mhm. parce que rappeuse la c'est vrai mais mhm. aussi foog ñu indi tous euh, tous. féminité bi quoi voilà donc bi ko jigéen mooy dem marché jigéen mooy def loolu yëpp. pourquoi pas mu jigéen rab bu jigéen a gën a. ko jongo en tant que femme ak ni nga mel macha allah parce que kuy rap ay rabu góor hardcore euh, da nga war a yor style góor mu xaw a métti wala nanga mais yow euh, en tant que femme ah femme ah donc ngay def hip hop est-ce que du du métti ci yow nekkul loo xam ne da nga koy forcer non non nekk lu ñuy forcé aussi defuñu aussi rap kese rap kese tu vois limité wuñu kese si si si hip hop. ok donc hip hop dafa débuté suñu carrière voilà dafa mm-hmm. débuté suñu carrière. nekk aussi ñu bëgg ko di ko def voilà mais on limité wuñu si rap kese. kese. tey maanaam bu ñu doon wax li météo ci lan exactement ngay exceller. voilà ah, si côté R&B si b R&B musique voilà alors lan moo la poussé fi mu ne ba nga dugg ci li nga xamante ne moom moo di rab bi aimé ko dafa am kenn koo doon gis wala c'est quoi waaw waaw xam nga rek soo nekkee xale tout le temps man dama doon déglu musique lu bari donc je peux dire que rab yi ma doon déglu moo moo ëppoon moo ëppoon mhm. leen yeneen euh, style musical yi mhm. donc ci loolu laa dem ci focus et que studio bi ma demee aussi genre sama premier son hip hop la donc mu nekk loo xam ne si dafa yan ak euh, yan euh, relation nga am ak euh, ay ñoom Mamy Victory ay ñoom Depa ñoom ñoom OMG. si salaam waay xale bi mu ne ruube. donc man dama la indil beneen rappeuse boo xamante ni ñoom ñaar ñi bu ñu freestyle la fii nii war a clashante. Mhm. non non non classe moom loolu loolu. non classe loolu fi xaj. neel féminin classe féminin kay toog nii kay. Eh, ah, bien ça. Eh parce que te tos nag am nga utilité nag tos nag vraiment tu es utile oh, xoolal tu es utile nag quand même mais tos yow yaa indi kii nañ ko bàyyi kon moom mu présenté wu. Euh, ñun nañ ko bàyyi toogal bu baax yow if yow daal. comme da ngay rap da ngay ñëw ci plateau bi nga toogee la neex ci plateau bi. Mia Halil aka. Ah ok non waxuloo ko. non benn freestyle moom fi ñàkk Mia. nañ la bàyyi non il faut ñu waaw il faut ñu def dara. il faut ñu def dara. si Mia Halil from Kër Massar. bi. te zéro freestyle sa micro moom ngay waxee ci seen micro ñoom yaay jël ku la neex jox mu commencé freestyle bi nga jël keneen ki jox mu commencé freestyle bi ñu àndandoo ak ñoom dem. nañu xool vidéo am ba pare tos tos an sa mic amoo micro il faut que ngay jël fii di wax. yow Pape Samba tegal ñu vidéo Mia bi te génn ci kii ruube mi. ayca from Kër Massar maa fi aat maa ngi toj géem te defuma fi benn aat. bëri style bëri femme xam nga dama graw ah? man rek ci xale noo dañ may bàyyi xel benn moof ci biir game kenn attanu ma man ku ma mbéj nga kaawa lii du waxu muuma may teg lu nice nga ni gisoo xanaa da nga gumba ah? hey góor et eh, demal wuti kumba duma gawla kumba lambu ma bellaaj bi fëgg man la femme de fer dama samp nënd e get nga roab dëgg ndiga lii du gañ foo fil nga jaab dëgg dama mën rab min ko am so horizon fire my flow is getting it higher bad queen in empire I'm coming bunny on your town right I saw 2016 you saw 2008 MC Monoloma 15 you nothing but fake man What's and gentlemen, this is a big show tonight. This is Mrs. Mia. Voici Mrs. Maxis Blanc. Oh, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Mia Khalil. Mia Khalil pare na, donc ñu dem xool. yeah ok yaakaaruma ci kenn bay xaar ko ma tooj ah black mi ci rukk bi sëgg di job sëgg di job maire ma yónni ba tax man amuma jot nele ma tal ma toog maa ngi sama bopp bale fa ñu sóob yoon bi sori na lool waaye maa ngi fly complain wetug live sometime mi tar ñu gëm dox dem ku dul goot xamul lu may dund fikk ku wax fenn yee moom rek la mën a wax lu dul dama jante ba egsi fii mel ni mii contre ak jun sii booy mat ma shit ñu ñu pla it du ma ragal te du ma tiit nele ma nigga ñu mik te bàyyi mbib dama li gën a sa dik ñëw ma pour indi biif Satu-belahnya turun malit. Wow! Oh! ma ci solo gis lu la yéem kenn du ma téye noonu damay def man li may def ñu naa la seen yow bu kaar rek ànd ak gis-gis bu xawee lu ma génne mu neex kaay ñëw ba signé dama yéeg sa xol ni gaynde je contrôle la zone là où tout est ok man la femme de fer dama samp nañ ku ma ñàmmee dëgg kaay fëgg dënn aw si yoon bu leer a gën si bu dëng dama ñàmmee dëgg du ma teggi tànk ku ma gën a stylé ma may ko junni ku ma gën a mool ma may ko junni ku ma gën a fresh ma may ko junni may naa la junni may yaat la junni ay man lu ma nar laaj leen ma lu ma nar man lu ma nar tey ma wax leen lu ma nar ay man lu ma nar baataare xale bi lu mu nar baataare man lu ma nar baataare xale bi lu mu nar yëngal sa ndigg ay wala sa mbagg maa ngi ci biir ñame ko rek ma tëggal a ndaaga ak maay dox si koñ bi di bondee

Pape Samba il faut nga envoyé ñu message te élève bi euh, moom itamit euh, ñu encouragé ko bu baax a baax parce que ñi ngi gis euh, amour bi nga xam ni moom lay demee ci métier bi élève bi Pape Samba suñu suñu xarit la chaque samedi mu ñëw fii accompagné ñu donc loolu faaw ñu ñëwaat ci léegi ci kanam et Pape Samba son Mia bi il faut mu ñëwaat parce que Mia attaqué nañu ne ñu mission bi daaw yëpp yéen a ngi waxtaan déglu leen son Pape Samba indi son bi ñu déglu ko attentivement junni. ki ko mën bokku te ki koy jéem topp ma ci solo gis ñu la yéem kenn du ma téye noo damay dee man li may def ñu naa la seen yóbbu kaar rek ànd ak gis-gis bu kawe lu ma génne mu neex kaay ñëw pour signé dama yéeg sa xol ni gaynde je contrôle la zone là où tout est ok man la femme de fer dama samp mel ni ku ma ñaamee dëgg kaay fëgg dënn aw si yoon bu leer a gën si bu dëng dama ñaamee dëgg du ma teggi tànk ku ma gën a stylé ma may ko junni ku ma gën a mool ma may ko junni ku ma gën a fresh ma may ko junni zombie nga teg ma tegi teg tontine nga teg ma biir teg nga naan zombie ay gentleman xoolal ni may doxee xam naa ni may doxee neex na dañ ko woyoon ca jong ma xoolal ni may doxee a yaay ni may doxee neex na waaye moom bu dee jong ma day woy gentleman man ko xool ma ni may doxee a yaay looloy junni eh, Mia moo ñu ko indil eh, Mia eh, lan moo la indi ci rap lan moo tax nga dugg ci rap exactement mënu ma la wax lan moo ma dugal ci rap sax c'est c'est naturellement dama bëgg musique en fait voilà c'est c'est naturel en fait. amoo ci yoon amoo ko doon roy amoo ko doon euh, mooy mooy sa influence ba tax nga dugg ci musique bi. waaw du ñàkk mais dañoo bari tellement. Hmm. waaw parce que man déglu musique damay déglu ñu bari tu vois bi ma am ci musique ma ma poussé ma def musique. Madaba ci la bokk. <laughs> <laughs> non xaw ma moom mu ngi laaj wala. waaw mu ngi laaj waaw ba di nuyuwaat ñëpp ah je l'avais fait déjà mais dama koy defaat. nuyu naa leen waaw nuyu naa ñëpp ah, projet bi indi nga ñu euh, ba junni nag nekk loo xam te ne genre euh, dama ko préparé bu ma di foowantu studio teg ay biir di si dem nii c'est venu naturellement quoi ma nekk di si foo nii mu naa je me suis dit pourquoi pas ñu def ko son mhm. puis noonu la dikkee ah dafa mel ni yemoo rek ci li nga xamante moom moo di rab bi je pense que am nga ouverture mën a dem si yeneen type de sonorité quoi. oui c' est vrai c' est damay mhm. laal ci ci ci sab quoi damay des fois damay dugg fii dugg fee. <laughs> kon daal mos euh, nañ la xaar rek tey nga indi ci ngéwél tamit. ci ngéwél bi moom dañ koy xoolaat mais bon mënul ñàkk quoi parce que lépp musique la. bi mooy sa premier son. wala da nga def ah. bi mooy sa premier son ah yaa ngi soog a def son ak clip. maa ngi doog a def yow depuis. Euh, kañ nga nekk ci hip bi. waaw yàgg na ci ay cypher laay nekk ci suuf di kii nii mais bi ma nekk sama première vidéo officielle. fii lan lay annoncé EP euh, wala album wala da ngay def euh, ay single par single. voilà loolu laa bëgg def yóbbu tur bi fu sori ak ay single ay vidéo bi ci kanam doog a dugg ci projet. hip-hop rek ngay def wala dafa am leneen looy def ci wet ki. waaw li may def bari na mhm. bari na damay def bànn du hip hop kese maa ngi ci maa ngi laal lu bari daal musique laay def ah. tamit ba xam moom mu ngi doog a def son tamit wala yàgg na ci. Euh, waaw man aussi euh, yàgg na si comme loolu man moom presque ñoo def ñoo defandoo voilà exactement. yow yaa ngi bi ma def beneen son tamit. non non mu jëkkoon naa euh, mm-hmm. def beneen. maa ko def. sama sa Black Record. ok boobu moo nekkoon sama première vidéo. Mhm. donc bii moo nekk sama deuxième. deuxième vidéo voilà. ok ndax yéen ñaar am ngeen duo. def ngeen son wala ñu ngi ci soog a gisante arrêté. ah waaw loolu tamit c'est ay projet yoo xam ne am nañ ko mën a moom on le fera incha allah waaw. ok yéen ñaar mosu leen am ay clash ay problème ak yooyu. ah baax problème xajul suñu diggante. même de hip hop bi ngeen nekk hip hop xam nañ ni. parfois suñu bëggee mu dox ah. donc nañu ku nekk wax ci yéen ñaar say projet euh, sant nañu leen mis à bi ñoom ñaar featuring bu ngeen di tourner clip tamit pour yéen ñaar euh, je serai ñi woo la ci waaw monument est gratuit naa mi sa gos il est <laughs> insuffisable ay mën ngeen wax seen ay projet euh, ngeen wax ñu lan ak lan moom ngeen di xaar ci kanam mhm. wax ngeen sant tamit ni ngeen bëgg a sant ngeen kontaan nañu fi yéen bu baax a baax voilà euh, projet yi moom ñoo ngi fii donc euh, on a d'autres vidéos yi nga xam ne ñu ngi si ginnaaw ñu ngi ñëw tourné nañ leen ba pare donc bii moo nekkoon première sortie bi nga xam ne dañ ko génnee pour gars yi am un peu aperçu de moi et tout am na yeneen vidéo yi ñëw ak aussi ay projet album bi ñëw aussi donc euh, dañu ñaanal rek voilà affaire yi yegg si rek jàmm salaam. maa ngi gis SMS sama père. sama papa sama seetaan donc mën nga ko defal benn bigam mu seetaan ñun ñëpp quoi waaw <laughs> sama papa moom man maay man maay ab isam sincèrement mm. voilà aw ma fayam papa bu baax la donc papa boo xam ne chaque jour chaque jour day xooli la jëmale kanam si sa carrière mm-hmm. sama dara bu génnee je te jure moom moo koy njëkk a tas ay xarit moom mooy sama premier fan voilà waxuñu affaire spiri affaire musique la ñuy wax. surtout que ngi seetaan papa ma ngi seetaan. accompagner sa doom ci musique bi def. mooy wane ni fiiroo. ok ok <laughs> allez allez allez voilà maa ngi nuyu di nuyu sama sama yaay aussi et ma sœur Remcha voilà di nuyu sama famille à Guédiawaye. Mhm. di nuyu sama cousine bee toog nga xam ne dama kaa sonal. heure bu ma ko woo day ñëw. bébé Yacine donc maa ngi nuyu ñëpp ah toute la famille. Mhm. vraiment merci beaucoup ak ñi bëgg Maxis Black yëpp voilà. nañ jëm <laughs> bon euh, d'abord maa ngi nuyu waa Factory Label nga xam ne ñoo def son bi son bi mu ngi bokk ci projet Chanel benn projet boo xam dafa rassemble rassembler six meufs ku nekk mu defal la vidéo mhm. et tout donc maa ngi leen di nuyu di nuyu képp toog di ñu seetaan ak waa gaale ak sama sama famille parce que bàyyi sa doom nekk ci musique yombul donc euh, vraiment maa ngi leen di nuyu bu baax di euh, nuyu sama yaay di nuyu ñi ma àndal Mariama ma grande sœur Maria cosmétique di nuyu Badou di nuyu ñëpp ak waa Kër Massar ak yéen ñi aussi ah je suis contente merci beaucoup. en ay projet rek parce que ñun tamit euh, am nañu émission bu tudd. seetu seetu bi donc seetu Sénégal dañuy wax ne dañuy jël ay. jàppale par yenn saa ci wàllu culture moo xam mm-hmm. muy humour moo xam muy dance moo xam muy rap moo xam muy yooyu donc du ñàkk ñu mën leen di woo parfois ci benn semaine bi ngeen ñëw fii ñu bàyyi mic bi noonu teg ay euh, ay kii ay instrument euh, bàyyi leen rek ngeen doxal noonu ah, wusa wusa put your hands up def laay mm-hmm. mm-hmm. loolu ci yéen ah, ngeen may ñu doole et tout ça loolu ça <laughs> benn problème waaw Ousseynou Ousseynou. Ousseynou Ousseynou Ousseynou en tout cas kontaan nañu ci yéen bu baax euh, c'était un plaisir ànd ak yéen mm-hmm. beneen invité bi nga xam ni moo ci topp. yaakaar naa moo ci des. Alioune Guissé des na. Aliou Guissé. Mm-hmm. yéexagul des na Aliou Guissé. bi nga xamante ne nag toj na euh, soirée ba amoon ca euh, États-Unis kii tëggoon kii organisé woon ko Manick Diop. suuf